waaw ah, mais na xëy na dañoo am yeneen moyen yu gën a kii train bi rek parce que nit ñi mbooloo tamit chaque année day gën di yokk suñ tubaa def ne woon sama tey ju nga xam ne moom mooy gën ci nit ñi doomu aadama ñu ko def rek xëy na loolu rek mais moi en tout cas daal li ma la mën a xamal moo di maanaam tubaa moom ku jaral yaakaar naa yor nga passe boo war a a ñëwee quoi ku mu jaral koo xam ne suñ tubaa jaral na la tamit yaakaar naa ni année ba année moom war ngaa mën a yor xaalis boo a passé ñëw waaw di leen ñaaxaar rek ñu gën a góorgóorlu gën a xam nu ñuy liggéey nu ñuy kii rek parce que am na loo xamante ni bii nag ñoom noobal lañ ko war nañ ko waruñ parce que loo waaw loo yàkkamti yàkkamti war nga mën a def ndànk parce que ay doomu adama ku yàpp ay quelques personnes ay cent nangam personnes boo ko yebee war nga xam sa responsabilité dafa rëy kon war kere ngay ah, ko dégg bari na des yu bari dégg naa amugul ay genre barrage comme yooyu lamp yi tamit daa mel ni dégg naa ñoo amugul kan loolu boo ci jaaree di jaar guddi bu dee bëccëg sax nga gis normal mais bu dee guddi day lëndëm te am virage boo xamante ni làmp bu fa nekkul am na noo doon professionnel rek pare nga ba ngaa indi beneen action boo xam ne bokk ci dawal bi. nañ def ndànk daal daw ndànk dal ndànk egg si ndànk daal suñu faal noonu la ko waxee woon. foofu su arrêté train bi ubbi foofu ni ñuy jaar fa na am leneen lu mu def ci moom ndax bu ñëwee wax sëñ bi ubbi naa Ila Touba mu ñëw gratuit sëñ bi na xaw a kontaan loolu rek extra si laa ko te xam nga beral leen ñu xam ni suñu Touba kenn du moom. waa daa moom lépp ba mu e woote magal gi Jurbel dana ma am na ñëpp ñëw wuy ko mag ñi ñëw mu ne naa bëgg sama bis bi ma jëm ngeen seetal ma ko Serigne Touba ku man a togg sa kër nga togg sa njaboot lekk ko ku amul loo toggee na nit togg nga dem lekkale ko ba xolum sedd kan loolu day wane ni moom maam berne la woote ak sellal ku ko ci na di nga am li nga bëgg ndax kenn du moom. waaw li nga xam ne moom lañ am ci jàngatu train bi maanaam euh, la ñu doon gënal nag. mooy mu ñëw la doon gënal ñun mooy mu ñëw nam daan ñëwee ndax am na ci ñoo xam ne tey jii seen loxo jotul seen gannaaw. waaw autoroute bi moom man mii di wax ak yow jaar naa ci benn bu dul ñaar ci biir liggéey bi euh, des na waaye desul lu tee oto war cee mën a jaar daw jóge Ndakaaru ñëw Touba moo xam jóge cees moo xam jóge Ndakaaru waaw waaye tamit ubbite gi mën naa ni teel na mën naa ni teelut waaye lu war la tamit ñu ubbi ko ndax boo xoolee oto tali bi xat na mënuñ cee jaar ñoom ñëpp kon yella na tey sell na rafet na tamit ñu xool la gën a yanu maanaa te accident yi tamit mën nañu cee muccal bu yenn oto yi day jaar ci autoroute à péage bi kon ñu ubbi ko mu yi jaar ci mën a ñëw màggal si bu ko defee loolu bokk na ci li nga xamante ne si dina tax tey jii sog yi mën a wàññeeku ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen te ñoo ngi ñaan tamit suñu borom mu def ci yoon bi ndox mu sedd guy ba képp koo xamante ni si jóg nga ngir ñëw euh, teewee si bisub sëñ Bamba bi suñ borom defal la ci jàmm nga agsi ci jàmm fekk fi jàmm delluwaat ci jàmm fekk fa jàmm di sant taalibe yëpp nag di la wax ne nag màggal gi ñun amuñu lu dul moom te tamit amuñu ku dul sëñ Bamba te sëñ Bamba saa su nekk moo ñu gënal suñu lépp waaw ndax sëñ Bamba tey defal nañu loo xamante ni si ñun fu nu dem nu naw nu te kenn waralu ko ngir sëñ Bamba képp kuy murit nag maa ngi la ci yokkal ne war naa gën a góorgóorlu gën a gën a gën a te gën a xamaat kan mooy sëriñ bi loolu moom message la boo xamante ni maa ngi koy jàllale tey ma ci yokk ñu gën a bàyyi xel màggaluk sëñ Bamba ak politique bokkut nañu jël màggal gi defale ko borom ni mu ko bëggee te lépp lu xeetoo politique ñu génne ko ci lépp lu xeetoo wàllu politique sëñ Bamba néewul ne woote naa màggal gi ngir ñu politique lépp lu waaye def ci màggal gi defoo ko ngir sëñ Bamba defoo ko te yàlla tax lemal loola nga téye sëñ Bamba defar nag màggalam démb tey soog a ñëw ñun politique gun politique gun li ëppal solo daal mooy nu ngi ànd ak sëñ Bamba te saa su nekk léppam doy nañu lépp lu mën a am ak lépp lum mën a yor moo nu gënal lu keneen yor ak lu keneen am Sëñ Bàmba am amuñu lu dul moom. waa ñi nga xamante ni si ñooy jaar ci autoroute bi conseil bi ma leen di jox nañu gën a bàyyi xel ni ni dañoo nekk ci liggéey ko te liggéey bi pareegut muy lu bees te xamaguñu lu bees li bu ñu koy daloo. la ca war dëgg ma nga ca wala nekkagu ca kon tépp koo xamante ni si da yor daamar di jaar ci kaw autoroute bi conseil bi ma lay jox mooy nga def ndànk daw ndànk di nga dal ndànk yàkkamti yàkkamti yàqule wala yàqati def ndànk tamit yéewut a àgg fa nga jëm maa ngi jox bépp chauffeur boo xamante ni si yaa ngi jaar ci autoroute à péage bi moo xam beneen tari ngay jaar conseil ma lay jox mooy nga def ndànk daw ndànk dal ndànk yow mi yor oto bi di dawal bul dàqanteeg sa morom bul njëkkanteeg sa morom bul yàkkamti ci li ngay lenn ci li ngay def waaw jëlal sa temps nga def ndànk ndax ñu ñëpp ñoo bokk ñu bëgg yow mi yor vanaa bi na nga bàyyi xel li saa su nekk li nekk ci sa ginnaaw mat na 30 personnes te tey jii ñoom seen confiance bépp ak seen xel mi daal ci biir oto bi nekk yëpp yow benn bopp yow leen ko saf sooy dawal ba nelaw sooy dawal ba xiif taxawal nga lekk yàkkamti wuñ ci dara gaawtu wuñ ci dara nan jëf ndànk ndang ndànk ndànk loolu daal mooy li nga xam mooy conseil bi may jox képp kuy jaar ci autoroute moo xam la moo xam beneen tali bi la waaw yoon moom euh, tabaarkalla parce que euh, maa njaal euh, Touba autoroute la Touba laa jaar bu may ñëw tax tax ma sol bu baax noonu quoi parce que Touba jaral na ma ko gis ni xëy na le dama rem moo tax ñu ubbi autoroute la Touba bi mais daanaka parewul sax mais nag alhamdulilah alamin quoi man noonu laa ko jàngatee quoi gis ma si benn waaw waaw waaw waaw soxna si li wax dëgg la ko waxee rek na mën a ñëw ko yàlla dogalul mu ñëw mais yoon na loo am da nga ñëw incha allah loo am loo am da nga soob yàlla da nga ñëw soob suñu borom. tane gi moom métti nañu trop ndax ndax am na si ñoo xam ne tane yi moom daan aanaaj dañ daan taxaw gaaru ceer dem jël seen tane ñëw màggal si mun màggale ma màggal gi jeex ñu jëlaat seen tane dem dem ñibbiwaat ndax seen am na ñoo xam ne da leen a par rapport ak lii ndax instant yi nii oto mbooloo mi dañoo bëri ba oto yi xaaj am na am na oto oto yi mënut a indi ñëpp ndax mbooloo moo bëri màggal Touba moom fi daje ci mbooloo kenn xamuñu toll loolu nag xëy na seen gàllankoor rek ñoom ñoom waa kii waaye loolu moom métti nañ torop ndax buñ soyoon ci bi ñëw waaye xëy na loolu la yàlla dogal. ñëw gi bu fekkoon ne maanaam amul benn conséquence dana dana dana dana ñëw ndax loo xam ne da daan ñëw ay ati at yaakaar naa bu ñu jëlee décision ni du ñëw yaakaar naa ay gàllankoor ko teree ñëw waaye yaakaar naa du ak yàq pour man ak defar la daal pour man ak defar la euh, te yaakaar naa nekkul loo xam ne ak yàq lañ ci jubli ñu ko dogal man daal damaa jàpp ne ak defar la nañ gëm ne ak defar la yokku dara nag ci màggal gi ndax nit ñi moom bu oto ñëwul woon sax dañuy màggal si waxutuma la nag ak terrain loolu moom dama jàpp ne nit ñi moom bu fekkoon luy naawee indi nit ñi Tuubaa sax danañ màggal si bu fekkoon ne dañuy dox it dana ñëw màggal si kon jàpp naane ne loolu moom du amul benn problème waaw yaakaar naa ku bëgg a ñëw di nga ñëw ndax Touba moom fi mu ne nii ñëpp fi lañ dëgmal kon ku bëgg a ñëw yaakaar naa saxaar gi ñëw terewulaa ñëw waaw loolu nag nan jàpp ne ak defar lañ ci jublu waaye yëpp mën defar ak yàq lañ ci jublu ndax sëriñ Touba moom euh, comme ñi dogal dogal bi autoroute ila Touba yaakaar naa ku tracé aw yoon pour mu jëm euh, Touba yaakaar naa doo ak saxaar pour pour màggal Touba yaakaar naa daal nañ ci xalaat xalaat bu rafet daal jàpp ne lu rafet